et de faire ce vote voilà. mu ngoog def na comme ay prédécesseur am li tubaab naan il est sorti par la grande porte. Mhm. ni Senghor Abdou Diouf ak maître Abdoulaye Wade. je pense que dañuy dem directement palais présidentiel. absolument. monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye a nommé par décret numéro 2024 921 du 2 avril 2024 le premier ministre de la République du Sénégal. président de la République vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43 et 49, décrète, article 1er, M. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 2 avril 2024. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Monsieur le Premier Merci, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence de la République. Chers concitoyens, bonsoir. Euh, nous nous honorons d'être aujourd'hui ici, dans ce lieu symbolique, qui est la résidence du président de la République du Sénégal en ce jour tout aussi symbolique qui a consacré euh, l'avènement d'un nouveau président de la République en la personne de monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a prêté serment et qui a passé le pouvoir, ou on lui a passé le pouvoir aujourd'hui en ce jour. Donc un grand jour pour le Sénégal, un jour symbolique. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar fay remercier tout le peuple sénégalais pour euh, l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoignée en sa personne, mais au-delà au projet qu'il porte le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal. Je voudrais donc, à son nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé à ses côtés, remercier le peuple sénégalais pour cette confiance. Je voudrais ensuite adresser mes chaleureuses félicitations au président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et lui souhaiter plein succès dans la mission, certes exaltante, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et lui souhaiter plein succès dans la mission, certes exaltante, mais extrêmement délicate qui l'attend. Et c'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne, en nous nommant à, aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui en charge la coordination et la conduite de la politique de la nation conformément à la Constitution du Sénégal. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble, le programme qui s'intitule Pour un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est une responsabilité que nous apprécions. J'ai dit la dernière fois, lors de la conférence, de la, du meeting qui a clôturé notre campagne électorale, que nous travaillerons tous à faire élire le président Bassirou Diomaye Faye, mais il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaye Faye. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté, de la participation collective, comme le démontre depuis quelques jours cette formidable jeunesse sénégalaise à travers les actions de nettoiement des artères des différentes villes du Sénégal. Donc, je remercie encore une fois le président Bassirou Diomaye Faye, lui témoignant ou le, le garantissant de notre loyauté, mais notre dévouement également, en tout cas à la tête de l'équipe que nous allons former. Nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons, les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais.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 mu mu nekkoon discours premier ministre bu bees bu Sénégal euh, président Bassirou Diomaye fay euh, tabb na premier ministre bi euh, di Ousmane Sonko ay kàddoom la ñu doon déglu njëkk na ko def ci français mu def ko léegi ci wolof Sara Cissé donc Sénégal am na président bu bees waaye tey président bu bees boobule tabb na premier ministre am muy Ousmane Sonko. oui Pape Cheikh euh, Sénégal am na président bu bees am ci euh, même jour. président de la République. Euh, tabb nañ ki nga xamante ne moom mooy jëwriñ bu njëkk euh, ci gouvernement bi mhm. alors on peut dire euh, sans surprise mhm. mu nekk benn choi boo xamante ne c'est un choix on va dire logique mhm. dans le sens où confiance et nous notre totale loyauté je vous remercie de votre aimable attention voilà Ibrahima donc euh, les actes, les premiers qui ont été posés par le président Bassirou. Télévision nationale puisque ñu ngi jëlee image yi foofule palais de la république la ñu nekkoon donc Sara Pal ñu ngi la dagg léegi bi ngay commenté euh, nomination bu bees bi jëm ci premier ministre bu Sénégal Ousmane Sonko. Oui.